projet bi mi ngi tudd minier régional mi ngi bok ci juróom ñaari projet yu njitu rew bi euh, définiroon mu mu décider ci plan Sénégal émergent xam nga plan Sénégal émergent mi ngi dor 2013 bi muy dor autorités yi dañu 27 projets yo faut dafa euh, modifier Sénégal dafa wara changer euh, conditions d'exercice de l'activité économique Si lolu min def ci alors pour que mine mines soient dafa y' a valeur valorisation du phosphate euh, économie orifère, mais il y' a surtout man ce euh, que projet op minier projet minier Sénégal am appareil plateforme outils pour mine ay machines pour mine di rendre disponible des experts de haut niveau euh, si. Euh, économie minière mu soit ay ñuy ñuy ñuy ñuy niveau technicien niveau ouvrier niveau technicien supérieur de sorte que l'Afrique de l'Ouest tout sur soxla capital humain machine équipement euh, service ingénieur bi juriste bi minier Sénégal mu nek dans genre supermarché pour miner. yi loo loo loo lu am solo la parce que day tax luñu ñu doon des feneen mu des ci biir Afrique mu des Sénégal té Sénégal ils se sont positionnés pour être ce hub là ce cette ce supermarché là qui va permettre euh, d'approvisionner le Sénégal d'abord et puis les les autres pays euh, euh, pays yenen pays yu nek environnant moy mooy goxu Afrique saoudite. lan la ci muy gagné lu bëri la lu si ëpp mooy euh, gis nga si koom-koom boo boo bàyyee di jënd bitim di rek loolu gain bu mag loolu import substitution loolu lu am solo parce que day fexe yow nga defar nga ni ñuy defaree day yokk sa xam-xam nga Sénégal ba pare ginnaaw projet bi du nekk Dakar rek dina baax si li wax aménagement du territoire moy gox-goxaat yi ñu gën leen may doole. projet bi xëy na mu nekk Thiès xëy na mu nekk Kaolack xëy na mu nekk Kédougou xëy na mu nekk Tambacounda wala Matam en tout cas hors du Sénégal loolu c'est retenu hors de Dakar plutôt loolu c'est retenu loolu nag bu fekkee am na yooyu yëpp Sénégal daf siy gagné donc maa ngi doon wax xam-xam transfert de technologie mooy yokk seen xarañ si euh, affaire mine Sénégal daf siy gagné leneen mooy euh, euh, emploi Sénégal doit gagner gagné exportation mooy li si génn di dem di gagné en devise Sénégal da si gagné enfin li du territoire loolu qui est beaucoup boolee moom euh, un projet structurant dans le langage du pays e. voilà loolu euh, li ma di wax c'est un projet qui a une grande utilité collective maanaam dafa bëre lu muy jural askan bi